अन्नानैहाय Seria lá? Sou? Só a minha? Deixa tu. Já <laughs> def? Mãe, fi. É Saba, anin dai fatu? Dai fatu? Tua. se é cedo? Mungu é cedo, sou uma copinha. É, vai. Ndeyfaatu dafa baax. Ndeyfaatu. Ndeyfaatu. tey rek bon. ça va. ça va bien. ak ñii nii rek. ça va bien. waaw maa ko fi. waa chérie yow. yow namm naa la yow. waaw. yow yaa ngi koy joxe de. xanaa nekkoo ci weeru koor yow. ay yow tamit xam man du ma wax ndax jàngaluñu ma ko. ay waay kay dafa métti. kóor dafa métti kay merci papa. J'ai voté. Viens. Nema tutu ndox man la. Ndox. Tako tako woro. Nema ndox man la. Itu wam bakay xam nga ne sa baay du dowo. Ah? Fekkal mu yow. Ah? Ouais. Yi ngay woore. Ayo. Let's see. Jawab orang tak nak sekopi. Baik kopi. Eh. Apa kaita itu pinjaman? Kamu, kamu, kamu jadi ada minat yang ngorok. kaay ma laaj ma yow man yow itam yow bëri nga wax ah. lu xew. yoo xam ku am bàkkaar di woor. ku am bàkkaar di woor. waaw xanaa nga woor yàlla jégal la ko. yàlla jégal la ko. waaw. Euh, yoo xam ci ku sow yu dang. waaw. yomba ya da nga woor. da nga woor. nga yem ci xool bu njëkk bi kese. xool bu njëkk bee ma rey. boo ma rey. xanaa nga xool xoolaat ko. jaa dëgg mu ne tëgg ba wax ko ma xamatuma li ma yóbbee. nga xoolal ko bopp. yóbbu yóbbu ma ci biir. daa mën a sa bàyyi yàlla waxtaanee ko fu muy woo. Patomba dem ko xanaa.